mbokki Leewtoo ñu ngi leen di nuyu bu baax 4 avril yéen a ma gën a xam ñu ñëw fekk fi mbëru askan bi Adama Diouf comme ni ko Max di waxee toujours mu koy tooñ waaye ñun tam ñu gis ne saa bu ñëwee yëngatu beneen affaire la mais Adama tey ñu ñëw fekk ko ci buntu Adrien Senghor a ah, ngembuwul tey de sumeekuwul xaw ma ñu lay xew mais Adama ñu ngi lay nuyu. Pape Thialis maa ngi lay nuyu di nuyu waa Leewtoo TV di nuyu ki ma andal àndal ab laa Diop moo wàcc fii léegi mu ngi gaare oto bi day ñëw pour ñu dugg. tey ngemb wu ma mais dama ñëw pour seetaan si seetaan champion yi nga xam ne ñoo fi nekk nekkandoo woon ak ñun ak ñi xam ne génération yu bees nañu mais nag balaa may def dala maa ngi nuyu Sénégal yëpp ni nga xam ne noonu la ñu génnee feetoo 4 avril ak jàmb ju fi nekk ak élection yi nga xam ne yàlla dogal na mun amoon fii te yeneen pays di ko amoon muy amee noo xam ne neexul kenn te mu am Sénégal rafet lool tegini lool loolu damay ñaan yàlla mu sax dak ci Sénégal ndax Sénégal moom ñëpp naw nañ ko ci loo xam ne lu baax lañu mais Leewtoo TV nag bu ñu ñëwee fii adressé ngoon ñëw nañ foo xam ne war nañ fee ñew ndax gis nañu lu ñuy doxal di waru organisation lambu ak ci wàllu leneen ak leneen vraiment ñu kontaan ci ñoom di leen gërëm di leen sant. waaw mais Adama Diouf eh, dañ laa gëj a gis ci arène bi lu xew. da nga parewul wala gaa yi ñemul wala yaa ñemewut. non mën nañoo gisee ñemewuma nag mais ñeme naa sax be léegi xëy na parfois dangay jot dangay topp yoon. ba mu yàgg tuuti nga def benn arrêté am loo xam ne da koy defaraat gin koo toppatoo mais leneen taxul ngeen gij maa gis maa ngi fii maa ngi waa adressé ngoo semaine yi passé nag amoon ay xat-xat be tax ñëw ma fii mais man bàyyu ma tekkiwu ma ngeen boo demee CNC di nga gis ne renouvelé naa sama licence mais xëy na nag eh, loo xam-xam ma dem ba ma dem ba gën xam boppam moo tax boobu ba léegi may dégg di ku rek mais maa ngi ñëw ci kanam yàggul dara dinaa ñëw dinaa ñëw léegi léegi nii salay ko fogole seereer o fogole seereer maxe gidma nuun to simna nuun to yakara nuun simna a fog Lew TV soɓaxa meeke eh, gidma den yakara den fe jegna mi yakar ba bo meeke ba latam simna sum production fe eh, andoona yee ten mbi'oon ten ref fo simna a fog seereer fop 4 avril feke i passer na ref 4 avril fe andoona yee a refa 4 fa mosna i nga'an no pays lakas roog a fi'in ta xewta meeke saax to a refa na jam ak salaam élection ke passer na nu nga'an ta passer itna na jam ak salaam ku xewna teen nu ande ndogal roog o maxey gidma fop to yakarop simna xarɗes Cheikh i nde'u meen mbi'a sport fe mba ndiiki na koy ndiiki Espagne a inoriidu fede faak merci beaucoup simna Ngor Production merci beaucoup mu ngi noonu yéen ko déggandoo Adama Diouf eh, di mbëru askan bi yéen ko gis ñu ñëw ci Adrien Senghor 4 avril jàk sa organisé mise bi di 1 million yàgg du ñu tardé dañu dugg ci biir topp ma ñu xool lañ na ci biir dinañ leen ko indil benn par benn ba mu jeex jërë ngeen jëf mbokk yi Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a leen doon ñu ngi fii ci Adrien Senghor yéen ko gën a xam tey 4 avril la jàk sa organisé teg fi mise u 1 million ñu ñëw fii tey ànd ak Leewtoo TV ndeysaan yàgg suma caméraman bi tey dañoo war a ñëw indiwaat lamb comme niñ ko daan indee wa jox ko amateur yi ñi nga xam ne ñoom ñooy dund lamb waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy internetu Leewtoo TV xoolal ma yàgg amateur yaa ngi ni gis nga seen toogaay boo xoolee yàgg nga jël xool am na li ngay gis. te gis gars yi ni ñu toogee même chose rek même chose rek la ñu daan wax. waaw mais yàgg yàgg damay approché benn aventeur quoi waaw mais grand a nga def. mais ameen rek. jam soom. waxee noo jam soom kay. ah yar waayo de xam comme xew mbiru fa garafu la war a. mbires garafu la mbires garafu rek rek war a mbires. am na rek rek rek rek. Reug Reug waagu adna ne adna Reug Reug waagu ten i axa kay <laughs> kontaan fulim parce que gara fule quoi waaw wala ben nam a nam ne o Cheikh Cheikh Diogul Cheikh Diogul waaw <laughs> yéen a gis noonu amateur yi dañuy jël benn par benn bu ñu jëlee kenn rek yàgg jël nañu ñëpp Cheikh a ngi noonu dégg la mu wax nee na Reug Reug ñëwagul moo tax kontaanagul waaye noonu lay demee du ñu tardé dañuy wàcc ci suuf xool lan la ci indi leen ambiance. war leen ci mikaay war leen li nga xam ne ñoom ñooy bëre ba fin ba ba ci kanam ndeysaan xool leen jël bëjjën ba yëngatu na la ilaha illallah door arbitre yi dugg si nanu naa leen bàyyi rek ngeen commenté yàgg jëlal ma man du ma commenté yàgg ma bàyyi gars ñu commenté xawe ni mu yëngalee bopp ba ak ci kanamam gis nga gis nga ci gis nga ci tey lamb lamb di sunu baaxu maam ci mika yaa ngi noonu ndox mi xoolal xoolal nu mu koy wàcce am lu mu guux ca gémmiñ ba di ko wàcce benn par benn xoolal la mu rongoo xoolal xale nu mu takkoo ànd ak confiance waa mais ñu ngi lay nuyu waaw ñu fay ba biir kër V55 fay ah. waaw man noonu lay fayee. Ah, dama lay fay ba wis la. Ah. yooyu laay def. Ah, da nga nag confiance bu xew. waaw gis nga ñëw rek pour combattre man la Alboury ku ma déggul xam nga ma. biram penna njéeme biram cukuli cukuli njiglaan njiglaan sere sere njaajaan njaay. nuyul ma Babacar. ak xale bi ñoom ñoo bokk maam. waaw ñoo bokk maam buñ maama. waaw sama maam Birama Ndeela Ngaan Njaay mooy sama maam tamit. Birama Ndeela Ngaan Njaay sama maam. góor musu koo bu ko bu ko kenn musaana tooñ day bàyyi mat fukk mu boole duma waaw. waaw Albouri foo dëkk. waaw maa ngi nii maa laa dëkk Grand waaw mooy tew moo loolu maa bëre combat Balla Gaye Modou Lô bi avance sociale bi rek booba waxuñ dara. ma ñëw di compétir si. ma ñëw di compétir dafa waaw bañ a bañ a namm dara rek ndax lu. ban dëkk nga dëkk nii. waaw. Ah? fan nga dëkk exactement. mooy Grand Médine Albury bu Grand Médine. waaw. dëgg neexul. waaw mais tey da nga bëgg a jël yëf. waaw loolu sama yëf la damay jël. affaire bi diis na de. waaw fo rek contact rek. waaw mais lii lii leket la leket gu waaw ah. lii leket gu la leket gu ay bagage la. leket may leket kay ci laax wala lii sama leket la. legetu arbourieux yi ay bagage si xam xam nga xam nga xar du moroomu xërëm te ay xar la. déggu may wolof Babacar Babacar nag ma tegtal xel baa noonu Albouri yàgg yaa ci dama ko gisal sama bopp de gars koy commenté xoolal lu mu rangoo waaw mais sëñ bi lii la. waaw sant rek ñu nuyu rek ngeen ñaanal jël laabu ji rek. waaw mais lii lii ci bopp bi. waaw nee lii ay affaire la rek ay affaire la rek. waaw la rek. affaire rek affaire rek ay affaire la rek. waaw mais li ma jaaxal yow bëree woo. yaa ngi toog ci cumikaay woon nga ginnaaw ba pare mel nii waa kii ngay bëreel waa kii bëre nu mu demee kon non ci cumikaay laa toog xanaa kon kii bëre day takk ba bopp bi bopp yëpp dañuy jëm si rek dañoo jëm si rek di ñaan yàlla may ñu rek foo jógee nii campement Ngexoo laa jógee campement Ngexoo waaw campement Ngexoo mu ngi nii mu ngi fi waaw mu ngi fi mu moom nga indi di ñaan yàlla yàlla may ñu làmb ji rek comme ko daan defee daal waaw loolu ñu ngi nuyu waa Babel waa Gandigal te maa yéen ñeem foofu te maa dugg biir Somone. waaw gis nga foo àgg rek mu neex. ndeysaan kon ñëpp ñooy borom. nañu ñëpp ñaanal ñu jël lamb ji incha allah waaw. mais lamb ji est-ce que dina yomb. waaw non ñun lamb mënul mënul defe ñun yow xam nga loolu sax yow mii laaj la sax ma lamb mënul defe ci ñun ah nañ ñaan yàlla yàlla jaara fi ñu daan jaaral rek parce que loolu lañ bëgg ñëpp wut si mais yàlla nañ ko yàlla may rek. kontaan yéen a ko déggandoo Leewtoo mbokki Leewtoo yéen a man duma ko yak jëlal ma xale xoolal mu ngay waxtaan de waaye la mu gàll ci bopp xaw ma nu mu toll xaw ma xoolal kii jël bi xool mu def waaw mais fils nuyu. waaw ah, ñu fay père. waaw mais la. waaw babat la. ah lii lii ay bagage la rekk ay bagage waaw xam nga rek gars yi rek ñoo ma ko. foo ko jëlee Ngunjaan wala fan. waaw bokk na ci nag. waaw Ngunjaan moom bokk na ci waaw. an mbër nga indi. bébé Mbayang laa indi. bébé Mbayang bu Ngunjaan. hey moom laa indi de. waaw ah, mais affaire bi diisul. ah diis na mais garaawul mer miin nañ ko quoi. di ñaan yàlla yàlla may ñuy ko rek ci kattanu yàlla. waaw nga ñaanal leen ñu père. hey ñun waa ndeysaan xale yaa ngi noonu dafa mel ni dafa demoon te défilé ji waa mais Mbingane ñu lay nuyu. oui maa ngi leen di fay. waaw Mbingane da nga doon défilé lu mu demee nii. bon défilé ma xanaa di jàppale makisal Sall rek président Macky rek. waaw merci président la gis ak vert jaune rouge. waaw loolu la de. Uh-huh. oui vraiment kontaan ji rek. te tey di 4 avril. waa le 4 avril day kon normalement le 4 avril war nañu mu gën a sagal makisal ñu gis léegi sa benn programme. Euh, waaw programme bi maa ngi koy waajal dañ koy dañ ma ko tudd rek mais programme mu amateur la mooy le 28 avril bi kon donc ñu ngi koy pare ñu ngi koy pare suñu la waaw maa ngi woo amateur yëpp nag seen lambu la. E tegi tegal mbër yi itam. ni ñu leer amul problème Leewtoo pour ñëpp la. Leewtoo pour ñëpp la. Calis yaa ko gis un million la teg moom maadu Mbingane fii ci arène Adrien Senghor ah, ñu war koo def dimanche le 28 avril. ah kon loolu invité yi nee nañu. waxal ma invité yi Mbingane waxal ko sa bopp. Ah, invité yi mooy ki nga xam ne mooy maire de parcelle muy Moussa Sy ak Mbagnick Ndiaye ministre. E ki nga xam ne itam mooy Karim Sène e maire de Fimela ak ki nga xam ne mooy Guèye Ndiaye grand marabout de Fibal waaw kon nit maa ngi woo ñëpp daal su jëla andee. baa ngi essayer di chercher. ndeysaan seen combat bi yàgg na te gis nga sifflé na avertir nañu nee nañ ko benn avertissement arbitre sifflé waat na xale bi kabar na tibb suuf si sotti ko ñaan ca sotti jàppante nañu loxo dem na ba koy song mu rasu attention jege na ko xale ba na ci ginnaaw ñaari loxo yi na benn nañu aje loxo ya ca kaw ndeysaan déggal mbayang lum ñaari xale yi boo wattuwule arbitre yi intervenir ci seeni combat ndax ragal naa attention moo koy saqatal moo ngi koy dem di chercher gis nga fii yàgg kenn ku ne da bëgg sa morom écopé d'un avertissement sinon doo ci génn kuy arrière ku ne fu mu ne nii boo wottuwul dañ la jox li xam ne mooy defet bi gis nga na mu jàppee ca ngembala la. mais dafa mel ne dañu sonn. waaw yàgg di bëre yàgg xam nga la ñuy wax yàgg bawul dara. bëre coono day ñëw ndeysaan mu ngi koy a puus attention ak temps ñu bëre arbitre baa ngi wax ak mais ma xalaat la may ragal mooy temps bi lay xalaat bu jeexee gis nga li ma la waxoon a ah, ñaari avertissement nee na ko par passivité arbitre sifflé na bu arrêté combat bi na ko ñaari avertissement ak bu jeexul boo amee ñett rek dañ lay daal di nañ ci kaw jàppante nañ ci kaw jàppante nañ ci kaw jàppante nañu xale bi téye ko ci boppam dem na di ko mu résisté na Grand Mbagnick a ngi noonu di wëndeelu hey Grand Mbagnick arbitre sifflé na jox nañu Cheikh teg la loxo Serigne Ndiaye jël na ko na xale na loxo ba ci kaw loosu Serigne ndombo na ko ndombo a daan na ko sant nañu ci rek la attention kenn ku ne jàpp nga Lac 2000 la ngi defaraat loxo ba mu nga wor ndax da koy wor ndomba ndax da koy wor ndomba attention ndax da koy wor ndomba ndax da koy wor ndomba attention tànk booy fay dugg na tànk booy fay dugg na 2019 peut-être ñaar dafa mel ni da ko bëgg mbot. waaye. ndax l'an 2000 dana ko nangu. ñaari loxol l'an 2000 jàpp nañu. ñaari loxol Boy Faye tam jàpp nañu. le 4 avril 2019 fi jardin Adrien Senghor Jax production organisé un million la fi Boy Faye l'an 2000 ñaari mbaru arène ñaari mbaru arène miin nañ leen ci arène bi miin nañ ci lu simple bi attention Boy Faye l'an 2000 mbaa du ko wor ndomba Lilan 2000 di chercher attention war na ko damba da ko doon jéem a mboot depuis dalul L'an 2000 war na ko ndomb war na ko ndomb attention war na ko ndomb daan na ko L'an 2000 daan na Boy Faye ndeysaan fa lañ nekk commissaire Diop laa ànd ak suma ay naataango ak suma ay kilifa teewee si seen indépendant bi te maire de Grand Yoff invité ñu ñu ñëw teewee ko parce que at bu nekk nii la ñuy def dinañ leen invité su suñ indépendance ñoom it suñ xewle ñu invité ñu maa ngi ñaan ñaari réew yi jàmm yàgg suñ diggante waaw jërë ngeen jëf amin lañ ciy teg ci los yi attention attention Sélé jàpp na tànk mu rëcc ñam ñaar ñëpp ngem lu ñuul lañu ngemboo yàgg ñoom ñaar ñëpp ngemboo ngemb yu ñuul waaye la dem bi la nun wala mu feete suñu càmmoñ tuuti war na ko ndomba war na ko ndomba Sélé war na ko ndomba war na ko ndomba war na ko ndomba daan na ko Sélé Mellé jël na bi waaw maa lay fay. waaw mais Seye tey nga jóge Ngéhoo rek ñëw jël affaire bi yow tam nu mu demee noonu. waaw gis nga namoon supporter yi rek parce que ba saison bi tijjee ba léegi maa ngi soog a ñëw compétir chaque jour gars di ko laaj rek moo tax ma ñëw pour bëggeel leen tay quoi waaw. waaw mais daa am ki nga àndal. waaw. ba mu ñëwee fii daf maa ne jël da koo jël si woon. waaw daa am confiance si mbërëm nag xam na lu mbërëm liggéey waaw dañu nekk si liggéey yu bi laax yi loolu rek la. foo jëm fu ma jëm waaw ku fi nekk rek na foog ne moom. maa ngi lay fay biram tey eh, Jax production organisé yaay coordinateur bi. Hmm. waaye yaay Jax ñun xam nañu. waaw eh, di kontaan rek eh, biram ndax organiser làmb mu fees ba ñeneen ñi sax amuñu fuñ taxaw. di félicité mbër yi ñëw fii yëpp di leen remercier. xale yi ko o fogole Djilass. o fogole fop waa simol leng Djilass tout me jilasa ɓerena fo meta a feritna fo meta dayna fop maxey gidma den waasimo leŋ fo staff Djilass production fo staff Diaks production fop in way ngid amateur yi moom duma duma a di leen gërëm ndax wax dëgg yàlla sonn nañ li ma ko waxee léegi rek fu ñuy jëlee seen xaalis xamuñu ko mais nag ñu ngi ñaan fu ñu jëlee seen xaalis yàlla na yokk kontaan nañ trop. amiin lañ ciy teg mbokki Leewtoo TV wax jaa noonu tey ñu ñëwoon fii ci Adrien Adrien Senghor gis ngeen li fi xew mu ñu leen di jox rendez-vous ci benn numéro jërë ngeen jëf ma ànd ak sama caméra bu ñaawul bi nag yàgg.